waaw waaw ah, man ndax kenn du la nangul nga xëy rek ne maa ngay dem ci sëriñ bi wuti ngërëmul yàlla waaye boo xesee ba ñëw mhm. yaay xam ni ngay nekkee ci kilifa mhm. war ma jeex farlu ci liggéey bi mhm. jubal sa kem kattan sellal rek liggéey waaw boo ko defee nag ba jóge fi tegu ci yoon wam la tegoon góorgóorlu ci sa kem kàttan boo demee ba yàgg nag ñu tàmbalee gis résultat yi ndax mag ñi ku ci mës a jóge ci sëñ bi dem ci say bokk dañuy gis ci yow lu xel même ba àndaat ak yow. dañ lay xel moom booy dem nag musiba rek ngay dégg. kese waaye boo demee ba ñëw. Mhm. dañ naan la fa nga defaroo dara nga. Cheikh Ibra firnde ñu keneen ak keneen ak keneen ak keneen. wallaahi ko defee nag boo ñëwee nag sagal sëriñ bi. Mhm. ah ñoom de ah bi muy dem ci borom daaru dañu jaaxle woon nañ. jaaxle woon nañ fii de lan ko jagat jagatee yóbbu kii naan kii dañ koo yeewu. Mhm. nangam te ñu bari sax dañuy war di wax. ndax seen expérience yooyu. nit ñi di ko xam. xam ne sëriñ bi. jariñoowul kenn day jariñe. day jariñe waaw ndax dajale ñoo xam yaa leen di woon. yaa leen di dundal yaa leen di faj seenu jaaxle yépp yow lañ koy diis si mm-hmm. te yow amuluñ la benn njariñ ndax liggéey bi bu sottee nga jox ko kilifa waaw léegi ban intérêt ci ñu ñoom ñu jub rek te baax néew na ci seen liggéey bi ah déedéet moo tax néew na ci ñoom ñu liggéey bu wér bi ñu koy gàddu yóbbuwaat waaye sàkkul seen bopp sàkkul njaboot gi ñu hmm. nekkal njaboot gi ko liggéey hmm. hmm. sàkk lu baax moom doyut fenn incha allah waxoon na ko sëñ Moustapha Sy ba <coughs> ba mu ñëwee